ginnaaw bi ñu ko tabbee mu doon jiitu gouvernement bi moom kii di Ousmane Sonko war a amal li ñu naan déclaration de politique générale dem si penc ndawi réew ma janoog ñi di député wax rek nañ lañ fas amalee ab politique ngir daal di yore lii di réew mi loolu nag ginnaaw bi nga xam ne ñetti weer yi nga xam ne la ñuy tàmm di gis ci premier ministre yi ñu koy amal loolu nag ay fan képp des si mu jurub waxtaan bu ñenn ñi jàppee ne moom kii di Ousmane Sonko dafa war a dem ci ensemble ñenn ñi jàpp ne waree suta dem loolu nag tax na askan bi dëkkee file ci Touba ñëpp di ci addu ñi dajeet ñenn ñi de dañoo jàpp ne kii di Ousmane Sonko warta dem foofu ci assemblée national li ko waral moo di biñ ko tabeek léegi yàggul dara te jamono ji am na liggéey ñu sumb loolu lañ war a continuer waaye dem foofee ci assemblée national doonut loo xam ne priorité la. pour man Sonko dafa war a toog ah warul dem de. parce que booy xool ñoom amuñu fa majorité te député fa nekk suñ demee fi mu toll nii mën nañ ko indi ay jafe-jafe. xam nga Sonko moom jantal maa ko ci ci pouvoir te gentleman boobu tey la gën a tey la gën a raw waaw mais politique lañ nekk. mais est-ce bi tënku tënku délai bi quoi ñu bari dañuy juum quoi loi bi euh, tënku délai bi nag trois mois yi bu jotee par la force daa war a dem. waaw parce que boo demee ci ci ci loi bi defaluñ ko délai. ñu dajeek moom fekk mu daal di toog fi nga xamante ni moo ci ci buntu palaasam moom waa ji duna xamal ne kii di Ousmane Sonko dee dafa war a dem foofu ci penc ndaw réew ma ndax nag lu nu mel mbooleem premier ministre yi fi jaar daat nañoo amal lu nu mel mu ngi xam ne ne kii di Ousmane Sonko dee dafa a dem ngir wax askan bi xam nan la fas ne gouverner rawatina ci nguurug président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. gaal yi yëpp moom niñ ko gisee mooy mu dem def comme Amadou Ba dem na fa ba def na dem rek def ni Amadou Ba def. waaw bu fekkee dañoo sukkandiku ci laa moom warul dem force moom Koba moom warul mën a dem force loolu moom ci moom la nekk daal waaye moom bu dee ñun Sénégalais yeeg suñuy gis-gis moom yenn saa yi dañuy gis-gis mu waroo quoi mën nañoo gis-gis dafa war a dem comme Amadou Ba dem na def dafa war a dem xañ na nag moom nag loolu la gis mooy gis-gisam ñàkk dem gi xam ne ci la arrangement am nekk et mooy gis-gisam. moom comme li jàpp dégg naa euh, boobu. bi nga xamee ne kii daf ko dafa ñëw maam Macky Sall daa di supprimer woon ko euh, pasu premier ministre bi dañoo dindi woon loolu noonu léegi nag bu fekkee ne dañoo dem ba koy defaat dañoo war a yóbbuwaat loi boobu assemblée ñu defaat ko ba pare après moom mu doo koo def. tey jii mënuñ ko balaa balaame ndax. bu fekkee ne kay def moom est-ce que bi Ba bi mu koy def est ci loi la la ko la ko tegoon est-ce que du noom dafa ñëwoon rek jikki-jikki def ko noonu ñii nee nañ da koo war a gis naa ay député yoo ne ña nga toog ensemble nee nañ du du da koo war a def ndax am na ñoo xamante ne bi jaar nañ fi te defuñu ko kon du obligatoire da koo war a def. mais déclaration constitutionnelle gis nañ ñu ci bu ma jëlee daal muy Amadou Ba waaw ci ci temps bi nga xam ne Amadou Ba def na ko ak moom temps boobu moom ba tey àggagut ci temps boobu. xañ na loolu moo tax defagu ko. waaw Amadou Ba Amadou Ba boobu am na fa majorité boobu dem nañ même euh, député Pastef yi sax xam ne dañoo lancé mission de censure bi ñu demee foofu. Euh, euh, Eh, eh, yeneen député yi ci des voté wuñ ko Amadou Ba ko ragal Sonko Sonko señ bi tamit Sonko ko Ousmane xam nga koo xam nag vraiment boo xoolee visage Sonko rek doo ci gis ragal cest à man li ma jàpp daal mooy Ousmane Sonko dafa war a bàyyi bañ am majorité bañ tas ensemble bi parce que septembre ñoom xam nañ ne dañuy dem septembre euh, Diomaye gëm naa ne day tas ensemble bi ñi demaat yeneen élection ñuy fal yeneen député bu ko defee Pastef am majorité Ousmane Sonko door a dem assemblée nationale. ay Ousmane Sonko daf koy neex mu ñëw ne def déclaration politique am mu mu bañ koo neex mu ne ci loi lay tënk doo koo def loolu moom lu logique la instant yi ñi koy ñi balaame ñëpp nañ xool ba xam loi boob mi ngi assemblée continuer nuñ ko wala continuer wuñ ko. ba tey xam nga xam nga pour man Ousmane moom chaque jour mi ngi conscience am chaque jour te ñun ñun ñi ko fal da surtout ñun ñi fal sax waa Pastef laa ñun dañ leen a wóolu. waaw ah, mais buñ ñu dugal am na yoo xam ne dañ ciy dugal askan wi yenn polémique yoo xamante ne dañ ciy dugal askan wi askan wi di ji tàbbi te loolu lépp yenn opposant politique yi lay doon. kon nga jàpp ne waaw politique politicien la rek ba tey non politique politicien la mais lépp wi mooy ñoom ñu liggéey loo xamante ne ñun dañ ci teg seen suñ bët ba liñ leen fale woon même donte mënuñoo defar lépp la ci ñu def ko. la lépp ci mën ne nag. danaa jàpp ne dafa ragal député fa nekk moo jàpp ma lool sax ah Ousmane xanaa moom bu fa bu ko ragaloon moom xanaa du fa du fa daan nekk. ah mais bokkuñ de mais dama yaakaar ne nag daa am lu muy calcul ci biir rek. waaw loolu laa yaakaar dama yaakaar comme loolu nga wax noonu rek am na. waaw loolu it xañ na loolu la ciy calcul. waaye loolu moom mën na cee bañ a am. parce que waaw. tas ensemble. tas gouvernement non non. loolu bañun ko ndax ñun xam nañ ñu yor tamit wër na yàlla bañun dara. lépp loo xam ne arrangé na peuple sénégalais bi ak lépp loo xam ne jàpp nañ ne bu ñu ko tegee bu fekkoon dañuy tas taslee sax mu nekk mu nekk loo xam looy arrangé peuple bi la ñun dañuy ànd si bi nag jamono jii de li ñuy sàkk ñu wéyal liggéey bi nga xam ne door nañ ko bokk na ci wax wàññi njëg yi ak li nga xam ne moo di semence bi nga xam ne ñu ngi ko yóbbu ci àll bi wante jamono jii di wax waxu politique doon loo xam ne luy jëmale lii di réew mi kanam la mais ñàkk a dem ensemble national daa tax réew bañ a dox. réew maa ngi dox de wàññiwuñ mburu mi waaye mburu daan jël deux cent franc ñu wàññi ci cinquante franc hmm. lay imaginer borom kër bi war a xëy jënd dix wala vingt pain ci këram. fi jógee dafa lu ñu leboon lu bëri lu ñu leboon lu bëri lu loo xamante ne dañ ko def tegoon sar suñu suñu ndodd ñoom nag bi ñu ñëwee il faut ñu jéem a recadrer waat loolu tegaat ko ci yoon ba pare ba yenn bor yi xaw ñoo wàcc ñoom it ñu doog a jël seen seen seen seen seen politique pour continuer pour man. am na nag ñoom lu ñuy essayer pour jiim ko muy wàññi ak yéen yooyu yëpp c'est bien beau wax dëgg yàlla man gis naa ci benn benn tuuti yokkute rek boo xamante ne par rapport ak ñi fi nekkoon quoi. di yàlla de ñoo ngi ñuy wane de yoon moom li ñu wax li Bassirou Diomaye wax moom ni jub ak jubale ñoo ngi ci yoon woowu moom wax dëgg yàlla moom yàlla leen yàlla jàppale rek. maa ngi ci yoon de képp koo xam ne si nag jub ak jubal ak jubanti moo nekk ci yow te moom ngay doxol réew maa ngi dox bu dee saay saay seeg gars yi moom. pour ñoom réew mi doxut parce que li fi nekkoon dañuy jàpp ne mooy koon ne te loolu jeex na instant moom liggéey rek teg li fi ci yoon. xam nga mbir da nga yor mooy am junni te xamoo ko ñàkk ko te xam ko daf koo gën mais man pour man ñi nga xamante ni ñoo toog nii bu yàgg dañ doon seen junni bi di ko seen di ko seen ba tey ñoom ñu yegg si ci pour man dinañ xam ni nga xamante ne moom lañ ko war a exploité ba sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom man cee jariñu man pour man loolu la ko ginnaaw bi ñu ko tabee nag lu yées ay fan képp mu amal ñetti weer ci bopp gouvernement bu président Bassirou Diomaye Diakhar fay moom mii di Ousmane Sonko nag jamono jii mu war a dem fële ca penc ndaw réew ma ngir amal li ñu naan déclaration de politique générale loolu nag bu ñu sukkandikoo ci ay boromi xam-xam ku nekk rek daal di nga koy jàngatee na nga xam ne noonu nga ko gisee bu ñenn ñi jàppee ne luwaa tënkut ko ngir mu dem ñenn ñi jàpp ne da ko war a amal ngir rek li ñu naan gentleman politique ndax nag lu nu mel de kii di Ousmane Sonko dafa mel ni dafa am lu muy moytu ndax nag bu ñu fàttalee kii di Amadou Ba bi mu nekkee njiitu jëwrin ci nguurug kii di président Macky Sall bi bu ñëwee foofu député Yewwi Askan bi dañoo amaloon li ñu naan motion de censure wante lu nu mel ni toon mu mel ni kii di Ousmane Sonko loolu lay daw ba tax na jamono ji déclaration de politique générale bi nga xam ne mu ngi ko war a amal foofu ci assemblée nationale ba tey jilee xamaguñ ban tànk lay feccee waaye nag buñ sukkandikoo ci député Yewwi Askan Wi moom dañuy sàkku ci kii di Ousmane Sonko mu bañ a dem foofu ca penc ndaw réew ma Touba Keba Diallo Baye Saliou Dieng Info 7 TV